أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu comme nañ ko baaxee def ci talaata bu jot ñu jël dars ci kitaabu tawxid ñoo ngi continuer bunt bi di jël tey xadisu anas ak xadisu uqba ibnu amir mu ne walahuma an anasin qaala qaala rasulu llahi sala allahu alayhi wa sallam la adwa wala tirata wa yucjibuni alfalu qaalu wama alfalu qaala alkalimatu tayib wali abu daawud wali abi daawud bi sanadin saxiix an uqbata ibnu aamir qaal zukirat tiiratu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal axsanuha alfa'lu wala taruddu musliman fa ida raa axadukum maa yakrah falyaqul allahumma la ya'ti bilxasanaati illa ant wala yadfacu bisayiaati illa ant wala xawla wala quwata illa bik mbokk yi comme ni ñu ko xamee yonent alayhi salaatu wasalaam jamono bu nekk du deñ di defar pas-pasu jullit yi ndax ñu bañ a dugg ci lu yàq seen diine àdduna waaye yàqal leen ko àllaaxira moo tax moom yonent alayhi salaatu wasalaam mu teel ci lu gaaw naf yu di daq taalluqul qalbi bi gayrillah moom yonent mu teel dégagé dindi soril lépp loo xam ne day tax xol aju ci te du aju ci yàlla ku takk dina la tekkiloo ku samp mu simpiloo la ku yaakaar mu génne la ci jubal jullit yépp ci yàlla tabaraka wa taala loolu tax fukki at yi mu nekk màkk yépp tawxid la yonent bi doon woote yonent bi dafa dàq complètement taalluqul qalb bi gayrillah ay gaafloog ay gaaflu bidaak picculoog yaakaar ak def def leeg yépp yonent ko dindi ndax loolu da lay tere yegg ci yàlla day tax sa xol bi yàlla rek du ci occupé surtout nag fii jalbil nafi awi dar surtout nag nga yaakaar ne lii da lay indil njëriñ wala mu lay dàqal lor loolu moo ci gën a bon ci ab jullit mooy nga yaakaar ne ku dul yàlla dana la jëriñ wala dana la lor wala lu dul yàlla dana la jëriñ wala dana la lor loolu dootoo egg ci yàlla mukk parce que amoo pas-pas bu wér te lii wa haza huwa tawxid lii mooy tawxid lii ñu wax moom mooy tawxid mooy génne sa xol bi lu dul yàlla ak ku dul yàlla nga fas ne njëriñ ak lor ci yàlla lay bàyyeekoo du bàyyeekoo ci kenn mu ne wa haza huwa tawxid wa huwa du'aaun munaasib liman waqaa fi qalbihi shay'un min at-tatayyur daa'un munaasib mu ne lii feebar la boo xam ne dafa dal képp koo xam ne xolam bi picc lu da cee nekk wala gaaflu wala ay wàllaateeg wala bu kenn dem fenn nag wala duma laal li guddeeg wala lii kenn du ko takk ak kenn du ko képp koo xam ne ci nga nekk nee na yow feebar moo la dal mu ne wa tasrix bi annaha la tajlibu naf'an wala darran wala tadfa'u darran wala ya'uddu man i'taqadaha shafihan mushrikan wa ya'uddu wa ya'uddu man i'taqadaha shafihan mushrikan mu ne ci lu leer mbokk julit yi ab julit dafa war a fas ci xolam ne yàllaay jëriñ yàllaay lore kenn du dàq lor ku dul yàlla mu ne képp koo xam ne nag yow da ngaa fas ne am na keneen wala leneen lu lay xëccal një- njëriñ wala lu lay lor mu ne yow dañ lay konte ca dof ya ak bokkaalekat ya wa yauddu man itaqadaha dañuy konte képp koo xam ne fas na lii shafihan mushrik ab dof waaye ab bokkaalekatu yàlla ab julit suñ la limee ci way dese ya daal lay lim ca bokkaalekat ya loo am ci yàlla dootoo am dara mu ne looloo tax yonente alayhi salaatu wasalaam bi muy jàngale hadis bi mu ne iza raa ahadukum ma yakrah kenn ci yéen bu gisee lu mu bëggul wala lu mu ragal fal yaqul allahuma la yaati bilhasanat illa anta na wax yàlla lu baax day kenn du ko indi ku dul yow fekkee da ngaa ragal leen wala da ngaa tiit leen wala bëggoo leen dal la bul fi nekk naan diw bi mu duggee ci koñ bi ba léegi moo tax lii ñëw fi diw bi ma ko rombee mu nuyu ma ba léegi moo tax lii laal ma bi may tukki xam naa ne heure bi ma jóg moo baaxul wala bisu sàngam laa demoon bis boobu baaxul wala waxtu sàngam bi ma dem wala ndaw si bi ma ko takkee ba léegi wala fas bi bi ma ko jëndee ba léegi wala déedéet bu wax loolu soo gisee lépp loo xam ne bëggoo ko rek delloo ko ci yàlla tabaraka wa taala bul ko delloo ci kenn ndax ñépp jaam lañ ñaanal ñaan bi waxal allahuma yow yàlla laa yaati bil xasanaati illa ant yàlla lu baax de kenn du ko def ku dul yow yaa am lu baax yow yaa koy joxe wala yadfau sayiat illa ant yàlla kenn du dàq lu bon ku dul yow léegi nag gis nga ab jullit bu gëmee ñaar yi day noppalu soo gëmee lu baax yàlla moo koy indi lu bon yàllaa koy dàq féex nga waaye bis boo gëmee ne lu bon nit ñi ñoo koy indi lu baax nit ñi ñoo koy indi sonn nga loola tax gis nga bokkaalekat day sonn ci dundam luñ ko wax def ko mu def ko soo ne woon benn waaye buy bokkaale bàyyil ba 3 heures du matin nga dem ci digg stade bii xutteeku ni la sa yaay juree nga sangoo deret fexeel bu la kenn gis dina ko jéem a def soo ko ne woon naan ci sax mu naan ko mu naan ci soo ko ne woon xëppool doomu taal mu xëppoo ko boo ko ne woon yéegal ci kaw garab gi guddi mu yéeg ci xool ngeen mbedd Sénégal da ngeen di romb jaaree nga gis ay neen yu ñu teg surtout ci sële bi yoon ay gis ñi mbedd boo xam ne dafa def Carrefour mbedd bi jëm nii jëm nii jëm nii jëm nii mu nekk ñeent digg bi bëri na lu ñu fay def ay ay liggéey wala ay loolu ñu naan ay sarax te du sarax ndax sarax soo bëggee génne sarax da nga koy joxe waaye nga jël ay nen tabletu nen par exemple nga ñëw ba ci digg yoon boobu nga teg ko foofu nga teg ci juróom-ñaari sondel nga teg ci juróom-ñaari guro yu weex nga teg ci juróom-ñaari puso nga teg ci juróom-ñaari bekk suukar nga teg ci lu weex lu ne juróom-ñaar nga dem bu nit ñi yeewoo fajar ku romb foofu nu muy def ñëppay tiit maanaam fekk loolu mu ngi ci digg yoon boobu ku ñëw da ngay teggi ay ku ñëw da ngay teggi ay ay rek ngay dégg laa ilaha ku dox ba yem ci rek laa ilaha illallah da ngay gis mu teggi moo tax sénégalais yi nit ñi gëmunu yàlla fi mu nekk nii bëri na ci ñun koo xam ne bu fekkoon ne buntu këram fajar mu ubbi di dem jàkkare mu ubbi rek gis ay nen ci buntu këram du génn bis boobu du génn day duggaat tëj woote téléphone ku mu xam ci nuñ koy dimbalee ci affaire yooyu pour ñu wax ko bu jaree sax benn waaye ñu daal di jéngu moom ñëw ne ko xaaral ma ñëw affaire yooyu dafa am lu ñu la def xaaral ma ñëw dindi ko ay miin la miin xam nga miin boo ci dëggee yàqu nga xaaral ba ma ñëw ñu demee noonu tey moo ñu moo ñu lor ku ko fekk sa bureau li ngay gis bokk na ci sénégalais bu ñu la nommé benn place poste nañ fa liggéey nga fay liggéey liggéey liggéey moo xam sa liggéey dafa jeex moo xam dañ laa dàq wala wala wala ñu nommé keneen kooku bu ñëwee du toog ci baa bi nga doon toog dootul bind ci tab ci table bi nga doon liggéeyee mukk mukk mukk ci àdduna yenn saa yi sax am na ñoo xam dañuy dem ba karo yi karo yi nekk ci suuf xoolal Macky Sall bi mu jëlee pale bi ñaata ñaata weer la toog demu ba nga dégg ñu ne wuu karo bi la ñuy déminé dañ koy déminé dafa am ñu fa suul dañuy sulli dëri xoolal loolu budget yi ñuy yokkal su fekkee patron ministre bu bees bu ñu jël bureau bu bees nga indi loolu ñaata la da nga naan parce que waa ji fii mu doon toog day dem sax ba ci ilimaan yi jàkka yi ilimaan yi nga gis ilimaan bu dee ñu ne beneen ilimaan ci koñ bi yaa koy remplacer mu ne ah ala ngeen toj néegu ilimaan dër bi génne xeer yi fa nekk ngeen toj fi mu doon taxaw ñu dëraat ko dër bu bees wala minbar bi nañ ko toj ñu defaraat ko parce que ba léegi wóoluwuñ ne dañ yaakaar ne kooku fu doon toog am na lu mu fi suul te effectivement noonu lay demee souvent ku ñu jox dara rek dañ fay suul dara waaw ak a bëri ci kër yi borom kër yi jigéen ñi yeew carreleur yi la ñuy woo carreleur yi ne la dindil karo bi nga dindi ko ñu ne suulal nga suul ñu ne tegaat ci karo bi ba mu normal wala ñu jëndi karo bu mel noonu tegaat ko ci pour borom kër gi du xam ak a bëri ci kër yi jigéen ñi li ñu suul même karo bi dinañ ko dindi fexe ba waxtaan ak carreleur bi ne la waxtaan leen ak carreleur yi ngeen xool ak bëri borom kër yu ñu xërëm te seen i soxna ñoo leen xërëm ak bëri chef de société yu ñu liggéey te seen i emploi la wala ay chef de société yoo xam ne dañoo xërëm seen i du jeex ci sunu réew mi noonu la bu fekkee nag moom da nga kaa yéegal nag nga dem ba ci sunu sëriñ si dégg ngeen bis bu ne ngeen dégg fi xuloo ñu naan li ñuy jox nit ñi ci ceebu gàmmu yi lañ koy def ak ceebu màggal yi gaa yi lekk bis bi nañ nga dégg am na fi dégg naa fi benn kaset benn sëriñ boo xam ne nee na ceeb bi bu ñu koy togg sëriñ bi da ciy sangu bu sangoo ba pare ci kaw ceeb bi ñu doo koy jël togg gaa yi lekk pour lan pour taalibe yu bëri xanaa loolu tawxiid daf koy dàq ku am tawxiid bu gëm loolu te gis nga nit ñi li ñu xamut gis nga nit bu amee tawxiid wallahi alazim asamaan ak suuf yëpp bu ñu àndoon bëgg laa lor mënul la dara yont yàlla ibrahima lan la takkoon bañ koy sànni ci safara si bi ko gaa yi ne ibrahima boo baawul sunu xërëm yi danañ la rey danañ la alag lan la leen wax allazina amanu walam yalbasu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn hum muhtadun mu leen wa kayfa axaafu ma tushrikun naka lay ragalee yéen li ngeen bokkaale yéen ragalu leen may ragal ci la leen wax ne ku gëm yàlla jaxasewul ak ngëmam dara kooku moo nekk ci sécurité wala moom moo nekk ci moo jub si ki nekk ci kooko jub ñun nag dañuy wax ne ëy boo gëmul xar fa fuufa xar fa fuufa ne la fuuf waaw ëy fii de moom da ngay takk mbaa nga naan boo takkul mbaa nga naan rek boo bëreewul gaa yi bëre yooyu lañ lay gëmloo waaw yéen nag da ngeen naan yéen du ngeen takk waaye gis nga réew mii boo bëreewul ñu bëre daanu sa kaw xoola benn waaye ma koy tàggu di dem màkk man de ma koy tàggu di dem màkk mu ne ma da ngay jël aaya sàngam nga bind ko ma toog di ko déglu rek mu ne ma boo ko bindee ba pare nga wut puubu béy puub bu fas puub bu xar xoolal man may jël ay puub di ko def ci ay aaye laa ilaha illallah mu ne ma nga def ko ci ci digg aaya bi ma koy déglu rek ba mu pare ma ne ko waaw lii nag ndax lan mu ne insha allah di nga dem ak jàmm ñëw ak jàmm ay puub ñoo yóbbu nit di ko indiwaat waxuma foo koy def mais ci ay aaya alxuraan binduloo ma aaya bi ne ne aaya sàngam la ma xam ne kii kon yàgg na koo def waaw ma ne ko jërëjëf bu baax nga nag xam naa ne yow da nga maa bëggal jàmm rek waaye lii nga wax moom du jàmm pour man dégg nga xaar ba nga gis keneen nga jox ko waaw te jaral na ko ci ah di insister di insister loolu nag moo bëri ci dëkk nit ki da lay gis ne la dama lay jox loo xam ne fekk lim la jox dafa yàq sa diini da yàq sa àdduna yàq sa àllaaxira xam nga ku jël alxuraan dégg ngeen tey rajo bi est-ce que dégg ngeen tey tës bi da ngeen tësu tey armeelu Pikine yi déglu leen ko armeel lañ dem sulli benn benn néew kenn xamul dañoo yóbbu néew bi kenn xamul dañ koo suulaat mais perkaal bi ñu ko muuroon lañ fa fekk léegi ana néew bi mooy problème bi ndax dañ koo delloowaat ci pax bi suul ko wala dañoo dagg ci moom dara delloowaat ko wala dañoo yóbbu néew bi alaa kulli xaal perkaal bi moom bi ñu ko muuroon foofu lañ ko fekk loolu mooy ci rajo bi tey gis ngeen su nit ñi léegi bonee bon ba yematuñu ci ñuy dund dañuy dem ba cañadee di xotti seeni orma di leen sulli parce que dañ laa wax ne boo ma indilee nopp ku dee wala boo ma indilee bëtu ku dee wala boo ma indilee loxo ku dee wala boo ma indilee faaru ku dee wala boo ma indilee yeelu ku dee mu jaral la nga dem uti yeel boobu benn waay damay waxtaan ak moom mu ne benn waay dafa ñëw ci moom ne ko damaa bëgg am xaalis mu ne ko mun naa laa indil xaalis de waaye boo dee da ngay dem safara mu ne bëgg naa waaw bëgg naa mën naa am xaalis rek mu ne ko mais da ngay dem safara mu ne bëgg naa amul problème su fekkee dina am xaalis rek defaral nee na waa ji ne ko dama nga indi benn ginaar benn couleur mu dem indi ginaar gi waaye jël benn téere takkal ginaar gi ne ko dama nga indi dugub nga def fee ba mu fees nga def ci beneen palaat bi ndox mattiyee nga taal ko waaye daal di indi dugub indi ndox taal matt yi ñu takkal ginaar gi téere bi ginaar gi dem ci dugub bi lekk ba suur dem ci ndox bi naan ba màndi dem dugg ci safara si daal di lakk ba xëm waaye téere bi lakkul de waa ji tekki téere bi jox waa ji waa ji jël téere bi dem léegi nit nga ne ko da ngay dem safara mu ne bëgg naa lu tax naa am xaalis foofu lañ toll nit ñi bon nañ ba dem ci armée yi di sulli néew yi waaw daanaka dëkk bi xërëm kese la loolu moo tax nit ñi pour seenu islam wir dafay doy waar parce que mënoo nekk ci l'islam ba pare am leneen loo gëm wala am leneen yooy def mënul nekk daanaka dëkk bi ku takkul wala doo dem ci yooyu wala gëmoo yooyu lu néew la gis nga 95 pour cent musulman boobu ñuy wax néew na ci musulman yooyu laa wax ñu dul dem ci ay buxaabaat ay xërëm ak wala di takk gàllaaj yooyu ci seen yaram wala ci seen néeg wala ci seen oto wala ci seen kër wala ci seen i rab même xar yi da ngay gis xar yi ñu leen di takkal da ngay gis ku takk ba takkal xar yi waaw lépp la ñuy takkal même fas yi dañuy takkal yëpp takkal oto yi wala oto yi day dee nag benn chauffeur oto bi baar bi dafa fees teel teel teel te xool oto yi ni ñuy accident yi ni ñuy reyee nit yi mais xeluwuñu nit yàlla moo koy musal yàlla moo koy jëriñ yàlla moo koy lor yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam soo gisee loo ragal waxal allahumma la yaati bil xasanaati illa ant waaw boo gisee lu baax waxal loolu boo gisee loo ragal waxal yow yàlla wala yarfau sayiaati illa ant nga teg ci wala xawla wala quwata illa bik wala xawla wala quwata illa bik gis nga baat bi amul lu mënul ci kaw suuf képp kuy am problème di wax baat bi baat bi dina la ci génne yàlla dina la ci génne insha allah wala xawla wala quwata illa billah waaye ñun kan lañ koy wax kañ baat bi kañ lañ koy wax laa xawla wala quwata illa billah kañ kañ lañ koy wax laa wax ñun su musiba amee da ngay tourné gis accident daan ne laa xawla wala quwata illa billah mooy yàlla man damaa bëgg accident bi waaye yàlla nag ma ko may loolu la nga gis oto tël nit mu dee nga ne laa xawla wala quwwata illa waay waay accident bi naa ko am waaye loolu lay tekki ni nga gis kër gu daanu ci kaw ay nit nga ne laa xawla wala quwwata illa waay waay waay waay sama kaw la waroon daanu waay dañoo bëgg mais xamuñu laa xawla wala quwwata lan lay tekki laa xawla awma pexe wala quwwata aw ma kàttan bu ma amee lii illa billah lu yàlla soo gisee lu bon da ngaa war a wax waa musiba inna lillahi soo gisee lu baax nga ni la hawla wala quwwata illa billah yal na am lu baax lii waaye nga gis lu bon nga ni ay waay waay aw ma pexe aw ma kàttan bu ma ko amee yow yàlla yaa ko am may ma ko moo tax su suñu su soo déggee kuy nodd yàlla dimbali la ba nga dem jàkk da ngay wax laa xawla wala quwata illa billah buy wax hayya ala sala mooy man aw ma pexe aw ma kàttan bi ma demee ci jàkka ji yàlla moo ma yóbbu loolu lañ la wax soo déggee kuy nodd su waxee hayya ala sala nga ni laa xawla wala quwa aw ma pexe aw ma kàttan fii ma ñëw de yàllaa ma indi mu ne hayya ala sala nga ni aw ma pexe aw ma kàttan yàllaa ma indi da ngeen defe ne yéen ñi yéen a indi seen bopp yàlla moo leen neex de yàlla moo ko neex mu ne leen acca am leen ñi nekk fii yéen a leen ëpp doole yéen a leen mën yéen a ëpp xaalis yéen a leen ëpp xam-xam kon yàlla la ku nekk ci lu baax rek yàlla moo la baaxee loolu nga nekk ci kële nekk ci lee yàlla moo ko seetaan mu alko kon loolu la laa xawla wala quwwata illa billah di tekki baat la yoo xam ne kenn du nekk ci jafe-jafe kenn du bëgg lu baax di ko wax te génnoo ji ku ko weddi essayé ko un mois nga ñëw ñu waxtaana sa affaire yi dina changé sa lépp dina changé boo nekkee ci ay tolof-tolof foo mën a nekk boo nekkee ci jafe-jafe boo feebaree loo mu la mun a dal deel wax laa xawla wala quwata illa billah yàlla dina la ci génn bismillah moo tax yonent nee na boo gisee loo loo lu baax waxal lii boo gisee loo ragal waxal loolu nee na loolu mooy istiaana billah yaa ngi sukkandiku ci yàlla ala fi'li tawakkul ah yaa ngi jël sa bopp yépp jox yàlla loolu mooy loolu mooy jaam sang njaam foofu lay feeñ wa adamu liltifaati ila tatayur allati qad takunu sababan li wuqui lmakruh uqubatan li failiha nga bañ a dugg ci feebar bu bon bi nga xam ne mooy gaafloog yaakaar ak foog ak def def leeg ay wàllaateeg ay umuk dama umuk umuk umuk gisoo umu boo yeewoo fajar boo dëggee xottu gerte da ngay umu boo dajee góor fajar da ngay umu xii ak bëri boo dëggee doomu taal da ngay umu boo dëggee xott nen da ngay umu ak bëri yi ñuy wax da ngay umu waaw bu ma um bu ma um de même nit ñi sax da ngay gis ku ñëw ne nga ne eh bu ma um bu ma um mel ne kooku moo yor mbir yi umu mooy lan xam nga umu xamoo ko xamoo ko ci olof xam nga umu yow mooy lan li nga naroon am kay xañ la ko nan la la ko xañee dafa am benn jëf bu mu def rek nga ne ko bu mu um de loolu loolu kooku daf la mën a xañ sa wërsëg li nga war a am waaw day gis ku lal sax kuy lal di jaay kenn de mu ne déedéet déedéet bu koy def suba teel la bu ñu um dimbali ñu rek am ñoo xam duñ déglu Quran fajar ndax denen da lay uma waa taxaw ci kanam njaay mi rek mu ne puusal puusal bu ma um am ñoo xam duñ déglu Alquran fajar neen da leen di um leen di um fu nit ñi jëm su nit ñi defee yii yii seen diine yow léegi du yàlla nit ñi la léegi yow boo demee ba sa diine du nit ñi yàlla du yàlla nit ñi la ana sa diine nit ñi gis nga ñuy wax ni ngeen koy xeeb moo nekk ci biir dëkk bi fees dal moo nekk ci biir waaye wala nga dégg ñu ne man njig njigéen laa njig njigéen lu waral loolu ñu naan njig njigéen lu ko waral lii waral ñu ne yow xanaa yow njig njigéen nga ah ñu ne ñu ne ah yow de njig jigéen nga waaw xamoon naa lii dina ma dal boo ko xamoon kay war ngaa mun a moytu ah xam nga ne xamoo ko kan mooy xam ne tey dina accident ba pare naan tey xamoon naa dina accident ah ku koy xam xamoon naa tey dama dara dina ma dal boo ko xamoon kay musiba boobu kay nga moytu ndi ko waaye xamoo ko waay dalaa dal rek te lu la war a dal gis nga li la war a dal mënoo muus ak waane ba du la dal du la warul dal wallahi du la dal damay seetaan barki démb benn vidéo buñ ma envoyé Facebook benn waaye buy dawal welo benn oto daw Aliou ñëw mbëkk pono bi ci kanam ba pono bi waxuma la dafa damm waaye pono bi daa naaw pono bi ci kanam welo bi bi mu mbëkkee pono bi pono bi wekkee ku naaw dali fële kenn gisul pono bi waa ji moom lu ñuy xalaat ci moom ah ndeke benn camion waa ji bi mu daanoog daggitu vélo bi des benn camion gi ñëw camion bi muy moytu waa ji daal di fel deuxième pono bi ba ba këpp moom camion ba këpp waa ji moom dara dal ko mu jóg taxaw ñaata oto ñaar xoolal vélo vélo ñaari oto mbëkk ki ci nekkoon jóg taxaw yàlla boo warul dee doo dee bis bi nga war a dee lu ñàkk fayda moo lay rey parce que dangaa war a dee tey boo warul dee boo jegoon ci asamaane juróom-ñaaree lin yàlla dina dogal ba am lu la jàpp nga wàcc ndànk waaw
sa benn rakk daaw noonu la dee moo ak rakkam ñoo doon jugee dëkk bi di ñibbi si Dakar bu xoolal si ginnaaw oto bi la nekkoon de oto bu mu doon départ dëkk bi di ñëw si ginnaaw oto bi la waaye mooy li nga wax yàlla daa dogal du xool a dee ñu si benn dëkk mu changé place toog si kanam gis nga te moom moo nekkoon ci ginnaaw voilà si ginnaaw la nekkoon mu daal ñëw toog si kanam effectivement boo oto bi accident si saa si la dee ah yàlla gis nga bi oto bi di départ mu ngi ci ginnaaw oto bi dam béyg benn dëkk xam naa ki nekkoon ci kanam wàcc mu ne leen bàyyi leen ma dem ci kanam
dafa war a dee rek iza nazalal bala amal basar iza nazalal bala amal basar gis nga yàlla bu lay wàcceel musiba keroog sa ñaan yeeg sa pexeeg boo takkoon ay téere sa di nga ko fàtte waaw moo tax bokkaale bu da ngay dégg ñu ne i waa ji da dee na ñu ne ah téere mi la téere yi la fàtte ana yàlla wala waa ji accident dara dalu ko ñu ne ko téere yi la billaahi boo takkuloon téere da nga dee inna lillahi ana yàlla
yàlla dafa ko ay waaw waaw nekk ndaw teel a tee ñu ne benn bettuñu ndax ndax dafa teel a sotti jàpp jàpp cat la cat ah déggoo rajo bi am waa jooju di def tës cat yàlla ni yàlla yàlla ñu cat tey lan la doon wax ñun dañoo lan ñun dañoo Ebola yàlla ñu cat séex dañoo Ebola te gis nga albala mu wàkkalul bil mantiq yont bi day tere nit ñi di di fowe yenn yu bon yi ndax balaa gémmiñ moo koy indi ñaanal rek yàlla ñu yàlla ñu cat waaye ay ñan yàlla ñu cat séexlu ñun dañoo Ebola ci cat ñun dañoo di wax wax yoo xam ne ab jullit du ñaane noonu kenn ku nekk ñu nekkul rek façon bu la neex ngay ñaanee déedéet ak lu la neex ngay wax ndax albala mu wakkalul bil mantiq même sa doom sax nga koy wax ay yàlla na nga deeg yàlla na la oto tëlëg yàlla boo gudd fa nag yooyu dañ la koy tere parce que balaa làmmiñ moo koy indi yonti moo ko wax kon yooyu dafa jara moytandiku te kuy kuy gëm-gëmal yàlla kuy ñaan ñaanal yàlla kuy laqatu laqatul ci yàlla kuy wakkilu wakkilul ci yàlla waaye gis nga sunu société ay mbir ñoo fi nekk yoo xam ne nit ñi dañ koo bañ a wax te loolooy tax sunu ngëm yàlla du baax te feek jóguñu ci yii dañuy julli ba sonn woor ba sonn joxe azaka di góor gu mais nii la dëkk bi di mel parce que nit ñi seen xol yi ñoo setut yàlla moo nekkul ci xol yi fi mu nekk nii ci Sénégal yàlla du def dara lu am rek am na ku ko indi dara du dal nit bañ ne la ah yàlla nag de da nga dégg ah xamoon nga ko waxoon nañ la naanal li nga bañ waxoon nañ la takkal waxoon nañ la dëkk bi waxoon nañ la fee waxoon nañ la kële waxoon nañ la heure bii waxoon nañ la yow mii rek kenn du la yàlla xanaa xam nga kañ lay wax yàlla est-ce que xam ngeen sénégalais kañ lay wax yàlla wala loo xam ne dañ ko bëgg a négocier xale bu jigéen bi dafa nekk seen kër ñu ëmbal ko papa ji bëgg koo génne kër yi nga dégg maire yi ñëw xam nga ne lii nag moom ndogalu yàlla la moom nag lii moom gis nga su boobaa ne ñu ne yàlla gis nga lu bon lu bon ñu ne yàlla moo ko dogal ko loolu kay yàlla dogalu ko kay dañu tooñ yàlla yàlla da ko fekk ñoom ñoo def seen yëf ba daraam ana lu ci lu ci ah ñu ne yàlla su boobaa rek foofu rek ngay dégg ñu ne yàlla foofu rek lu bon rek loo xam ne ci bàkkaar la bàkkaar warul am nga dégg ñu ne yàlla mais yeneen yi ah yooyu ko yàlla moomu ko nag yooyu moom xamoon nga ne lii bu ma la ko joxee bi nga ko takkee xamoon nga ne lii boo ko naanee xamoon nga ne rek yal nañu yàlla musal yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko mu ne wa zalika addu'a innama yasdaru an haqiqati tawakkul gis nga ñaan loolu moo tax yonente bi ne addu'a huwa al ibada ñaan mooy jaamu yàlla ñaan moo tax kenn ci yéen warul gàttañ lu di ñaan yàlla suba ngoon timis gee ñaanal yàlla làqatul ci sa borom booy tëdd boo yeewoo gis nga askar yi la yonent bi jox bul ko fàtte booy tëdd defal say askar boo yeewoo sa tànk yi bu naan cëpp defal say askar booy génn sa kër defal sa askar booy julli ci defal sa askar boo jullee pare defal bul fàtte benn askar bul fàtte te léegi yàlla dimbali nañu gis nga portable yi lu ne mën nga ko ci am lu ne mën nga ko ci enregistré lu ne loo xalaat ci wàllu lu lay jàngal sa diine mën nga ko askaru sabaa wal masa mën nga ko ci def di ko jàng rapidement mbooleem zikri yi asgaaru naw gis naa benn waaye boo xamante ne portable am balaa muy tëdd mu ne ko asgaaru naw fàttaliku bu doogee ba jaag portable mu ne ko laa tansa zikrullah waxtu nekk portable day wax ak moom su tëddee fajar bu ko biddanti portable bi day nodd ba pare daal di salaatu daan ne ko qum qum yaa axi qum laa takun min al munafiqin loolu ndimbal la allahu akbar te xoolal ay logiciel rek la de yore sa portable téléchargé ko foo toll mu lay mu lay mu lay fàttali yàlla par seconde par minute loolu xéewal la su boobaa sa xel day nekk ci yàlla sa xel du nekk ci ay masamba ak ay demba ak ay gàllaaj ak ay ay ay ay ay ay ay déedéet yàlla ngay jox sa dund lépp waaw gis nga soo amee tawakkul alallah bu set wicc bul faaleti dara bul gestoo ci kenn bàyyi nit ñi nga dem ci borom nit ñi loolu nag la nit ñi mënul nit ñi dañuy tayal dem ba yegg ci yàlla pour ñoom mënuñu ko foog rek ñu tax ñu toog fii quoi làqatu ci ginnaaw benn waay waaye ñu ne leen waa toog leen fii man ma dem dinaa dem man yéen toog leen loolu ñëpp ko war a bañ ñun ñëpp war a dem li waa ji bëgg lañ bëgg waaw allahu akbar même ñu baax ñi fi boo leen di wax da ngay dégg ñu ne non kenn ñooñu kenn mënul mel ni ñoom pourquoi ñun ñu mun leen a raw bañ a mën a nekk ñuy ay doomu aadama kese dañoo góorgóorlu rek wallazina jaahadu fii na lanahdiyanna yonent bi bi muy ñëw màkk est-ce que ñoom Aboubacar niñ meloon lañ mel ñoom Omar niñ meloon lañ mel ñoom Bilal yonent bi muy ñëw màkk fan la fekk saxaaba yi ñenn ñi di njaaloo ñenn ñi di naan sàngara ñenn ñi di rey ay nit ñenn ñi nekk ay agresseurs yu dangereux xool ay Abu Zar agresseur mais mujj na nekk rubul islam ah ay nit yu daan takk xoola Omar amoon na benn yàllaay tàndarma yàlla tàndarma Omar di tukki defar benn yàlla tàndarma jël tàndarma di ko kole defal ko bopp nopp bët bakkan gémmiñ sikkim baat dënn loxo biir tànk Omar ne ko yaa may aar maa ngi nii du tukki yow la àndal mu dem ba ci àll bi mu xiif amul lu mu lekk mu génne yàlla bi mu ne ko yàlla aal ma benn loxo bi ba ma ñibbi mu damm ko daal di koy lekk mu demaat ba ci yàgg xiif bi ñëwaat mu ne ko aal ma beneen loxo bi Omar noonu la di àbb yàlla bi baabu ko bopp bi ci la xam ne lii du yàlla te xool fu mujj law kaana nabiyan baadi la kaana Omar bu doon yonente dana am sama ginnaaw Omar mii lay nekk yonente bi nee na Omar bu jaaree ci mbedd seytaane jaar ci mbedd seytaane day daw xool foofu Omar toll ak fu mu jóge mi lu ko fa yóbbu pas pas pourquoi ñun ñu ne ñu ne ñu ne ñun mënuñ mënuñu mënuñu tolloo ku baax wala mënuñu raw ku baax ci ñun kese la ñun ñoo nanguwul dem mais ku nangu fóot sa ruu ba mu set jox ko yàlla def sa pas-pas jox ko yàlla wallahi léegi nga egg fi gaa yi eggoon wala nga raw leen xam nga nu mel mi ngi mel ne mbirum science science kan moo ko moom kan moo moom science dañu ne américains yi rek ñoo ko moom américains yi ñoo ñoo ko moom chinois yaa ngi nii tey détourné nañ monde bi te ñoo fi mujjoon seen borom xam-xam yi lañ doon wax bàyyi leen Chine nelaw bis bu ñu yeewoo ngeen am problème kon yeewu nañ am naa benn xarit bu leen tuddee yaa juuju wa maa juuju mu ne foo dem ñoom ñoo fa nekk ah waaw moom noonu la leen tuddee allahu akbar kon ñaan ndeysaan hiya xaqiqatu tawakkul wa huwa aqwal asbaab fi jalabil xayraat gis nga ñaan wallahi alazim moo gën a gaaw ci luy indi lu baax ci nit ñaan yàlla ñaan xam ngeen lu tax ñaan amul lu mu tollool parce que yow dangaa ñàkk nga ñëw waaf toog tàllal say loxo sujjóot ci sa kanamu boroom xamal ko ne awma mënuma yow yaa mën nga delloo yàlla mbir mi ni ngay def ci kanamu yàlla boo ko defee ci kanamu nit mu may la dama nga seeti nit ci biir saalam mu toog nga ñëw simmi sa mbax ne fële simmi say daal yeeg si sujjóot ci kanamam ah ni nguruj toog bu wax ak moom ndax nga koy wax di ko dee sa soxla pour rek pour lan pour mu régler la benn problème boo am daaj dalay xool ba jàng ñaata la sax ko vingt mille la jox ko waaye mu dem sama ko yàlla nag du noonu allahu akbar yàlla moom boo ko ñaanul dalay mere doomu aadama boo ko ñaanee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon nu muy def dalay mere ndeysaan benn waykat way na ci ñaari way mu ngi ci tafsir ibnu kasir mu ne doomu aadama boo koy ñaan ñaan yu bari dalay mere yàlla boo ko dul ñaan ñaan yu bari la lay mere du benn doomu aadama boo koy ñaan ñaan yu bari même bu dee sa pap boo koy ñaan ñaan yu bari lu muy def dalay mere yàlla nag moom boo ko dul ñaan ñaan yu bari la lay mere allah alquran wax maa yaababukum rabbi law laa duwaaukum yàlla bu ngeen ko dul woon ñaan du leen faale te inna allazina yastakbiruna an ibadati sa yudxuluna jahannama ñiy réy réy lu ne duñ ñaan yàlla yàlla mu ne safara laa leen jëm kon ñaan dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy indil doomu aadama lu baax fexeel nga tàmm ñaan amal awqaat yoo xam ne ay waxtu yoo xam ne ñaan ngay def di ñaan sa borom am na waxtu yoo xam ne dañ ciy nangu ñaan xam ngeen waxtu yi dee leen ko dàkk di ci ñaan yàlla tabaraka wa taala seeni aajo am na place yu ñuy nangoo ñaan am na waxtu yu ñuy nangoo ñaan yooyu doomu aadama war na ko xam pour di ci programme ay ñaanam waaw mu ngoog mu ne bul yam rek eh, ci ñaan lu baax waaye ak encore luy dàq ay lor والحلول وتحول الانتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له mooy li ñu doon wax sànq alxawlu mooy al intiqaalu min xaal ila xaal jóge ci lii dem ci lële jóge ci ñàkk dem ci am jóge ci feebar dem ci wér loolu kan moo ko mën sunu borom subhanahu wa taala keneen mënu ko yàlla rek moo ko mën léeg-léeg nga gis benn waaye bu ne rajo yi yenn saa yi nga gis koo xam ne day publicité xam nga léegi loolu waa ko looloo xew Sénégal nga gis kuy publicité ci rajo yi nan damay faj feebar yépp du ngeen koy dégg damay yokk wërsëg léeg sax nga di ku ne day yokk awra laa ilaha illallah di day yokka day ku bëgg sa awra yokk ci moom ngay dem mu yokkal la ko kii day guddal fan kii day yokk wërsëg kii day faj feebar yëpp léegi kon yàlla lu muy def te li ci gën a garaaw mooy ki nga xam ne day yokk wërsëg moom amul oto wala këram néegu ñax la wala dafa bàyyi ko Niger wala Nigéria wala Côte d'Ivoire ñëw Sénégal di ut xaalis ba pare mu ne damay yokk wërsëg nga gis nit ñi ñëw di rang buntu këram bu doon yokk wërsëg lu mu fi wut te mu toog këram rek fële rek xaalis bi yokku mu toog li nga bëgg a defal nit ñi defal ko sa bopp wala fi nee nañ bala ngay laax jaay di ngay laax lekk waaye déedéet gis nga comme sénégalais ñoom dañoo naïf léegi gis benn waaye boo xam ne day ci marché ba lay dem de marché lal ay ay téere lal ay gàllaaj waaw yëy groupe ba gémmiñ gu xonk nag yor benn geenu nag geenu nag jigéen ñi war a dem marché yépp mu ñëw nangu seen dépasse waaw lii reen bi mu ngi tudd pelam sex yàpp yi dégg nga de bant bi mu ngi tudd pelem sex yàbbi maanaam ku la sex dalay yàbbi ndax ku la bëgg a lekk dalay wàccu boo ko takkee mu ne boo koy gas xaaju guddi ngay jóg da ngay dëppoo loolu sol dàlli mbaam ku la gis dee koo gis mu dee benn waaye bu ma doon déglu ay jamono yoo xam ne fukki at laa muy nekk ci marché yi loolu la daan wax lii mooy pelem seex yàbbi mu ngi tudd Samba Sura xaw ma lan ñi doon nekk Pikine tali bu mag ak ñi daan nekk magasin ak marché sam xam nañ waa jooju xaw ma Samba Sura Bali xaw ma Samba Sura Dia am na daal nu mu tudd danaan wax lii mooy pelem seex yàbbi waaw cent franc lay jar boo koy gas xaaju ko di ngay jóg dëppoo lay sol daal li mbaam ku la gis dee koo gis mu dee nga dégg nit ñi ne ah jaay ma jaay ma jaay ma xoola cent franc ñaar fukki jigéen ku ne 100 francs ñaata la xoolal li xëy di dem marché di dugg xam nga 100 francs du dara léegi ma xool 30 personnes 100 francs 40 personnes 100 francs ñaata la bés bu nekk nga koy def ñaata ngay am weer wi am na ci ko leen koo xam ne moom bu ñu jullee jumaa pare la daan jaay benn téere danaan billahi wallahi wa taalaahi téere bi ku ko jënd ëw ko bi nga koy ëw nga boole ci dërëm giñ naa ci sama borom doo tàggoog dërëm dégg noonu lu ma wax de dégg noonu lu ma wax de dégg noonu yéen li ma wax de maanaam téere bi bi mu la ko jaayee waaw léegi nee na la téere fooy bi bi mu la ko jaayee boo demee ci uude bi mu la koy defar da ngay jël dërëm nga dugal ci mu ne billahi wallahi wa taalahi doo tàggoog dërëm bi ñu ne est-ce que jaay ma da koy jaay jumaa ji ba mu jeex takk ku nekk dem koo gis nag vendredi ba ca tegu mu ko ëw takk nag doo am dara te moom wax na dëgg parce que foo toll téere bi dërëm baa ngi ci biir mu ne billaahi doo tàggoog dërëm léegi moom bi mu la nee billaahi doo tàggoog dërëm yow fan la sa xel dem mooy foo nekk yaa ngi ànd ak xaalis wax na dëgg te yaa ngi ànd ak dërëm bi xoolal xoolal pexe yooyu yooyu yëpp ñun dund nañ ko fii mais nga gis nit ñi dañuy rang di jënd ba waa ji jeexal man gis naa ko taara bi benn fois
yooyu nag na ngeen ko moytandiku waaw da ngay dugg rek nga gis ku ne bismillah lii mooy gàllaaju nangam gars yi commencé jënd balaa waa ji di wàcc oto bi yëpp jeex te luñ koy jaayee lu ndaw la ay 100 francs yow da nga koy xeeb parce que da nga yor 100 francs 100 francs yi la jël la nga ne am indi waxuma la xaalis bi nga perte mais lim lay yàqal sa digganteeg sa borom moom moo gën a garaaw des fois dañuy ànd ak ay complices bu ñëwee defar ci biir bu ñëwee kii rek ñu gis ne maanaam jaay jaay bu defee ñeneen ñi yaakaar ñeneen ñi daal dem ñëw jënd mu ngoog dëgg la seen xaalis dañ koy dégg rek après ci la.
su ko defee mbokk yi nañu xam ne mbir yooyu yàlla rek moo ko mën sunu borom subhanahu wa taala kon yaakaar naa ne fii mooy sunu dar sa tey ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp ñu ñaan yàlla mu nangul ñu yàlla sàmmal ñu sàmmal ñu boppam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu fekkee am na laaj. وعليكم السلام ورحمة الله